wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baad wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala rabbi ishrax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi irshida لجم لنا الظاهري وباطني بطاهري يا ماحيا كبائري بجاهه ولممي إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk ñu bokk yàlla kii seen soppale ci yàlla Abdul Ahad moo desuwaat di leen di leen ziyaar di leen tatagal di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla boole ñu jégal mu mel ni bokk yi tey al yawma yawmul ahad te bisab ahad la di dimanche wala fi naan ko dibeer dix-huit jumaadal axir maanaam fukki fan ak juróom-ñett ci maamu koor wi ñu nekk ci ñi nga xam ne loolu lañ jàpp waaye di fukki fan ak juróom-ñaar ci ñeneen ñi nga xam ne loolu lañ jàpp atum 1445 atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom hijriya ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di légir al muwaafiq 31 décembre 2023 mu dëppoo fanweeri fan ci mois de décembre bii ñu nekk atum ñaari junni ak ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett miladiya ci juru seydina isa salaam euh, bokk ñu bokk yàlla fukki fan ak juróom-ñett bokk ci lim yu fatt yi lim bu rafet la ñu am fukk ak juróom-ñett rafet na ci ñoom waaye ñi am fukk ak juróom-ñaar it ñoom it rafet na ci ñoom kon tey rafet na ci ñëpp waaye nag dibéer bu nekk day di dimanche dañ ciy tere tere wattandiku ku ci wattu wala ko ci e, tàggoo mu ngoog duwaawul yow allahuma alhimni rushdi wa a'izni min sharri nafsi allahuma yow buur alhimni yàlla nga yenkawal ma rushdi sama jub wa a'izni ca nga musal ma min sharri nafsi ci sama ayu bakkan yow yàlla yàlla nga ma yenkawal sama jub maanaam yàlla nga ma eh, xamal sama jub ba noppi xiirtal ma ca teg ma ca yoon wa ma ne coow ca yoon wa waaye nag nga musal ma nag ci sama ayu bakkan ayu bakkan nga xam ne dafa mën a bakkan daa gaaw a màmm lool su la yàlla musulut ci moom teel la ko moom màmm da ko yomb ndax doomu aadama dafa bari ay bakkan yoo xam ne mi ngi nekk moom bu ci góor am na ci yoo xam ne bu ci góorgóorluwul rek doonañ ko dugal foo xam ne maanaam jaadu jaaduwul am na bakkan boo xam ne ñu ngi koy wax an nafsu al amaara al bi suu bakkan boo xam ne lu bon lu ñaaw rek lay digal boroom te yaakaar na bakkan boobu suñ demee ca suratu mbargaan ñu di ko wax surtout Youssouf ñu naan ko mbargaan eh, dan ferek suñ borom di wax ba di auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim inna nafsa la amaratun bissu'i illa ma rahima rabbi mu ngoog eh, mu ne bakkan daal dafay digle lu ñaaw lu dut bakkan ba nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala yërëm na ko kon bakkan bu yàlla yërëmul rek ci ay tuuxi doona ngay xëy ci ay tuuxi doona ngay gont kon yàlla na yàlla musal ci bakkan boobu kooku mooy bakkan bi njëkk ci bakkan doomu xaadama nga xam ne moom lu bon rek la lay digal lu bon rek ci la lay xiirtal nit ki nag war a def itte ba xeex bakkan boobu nga xam ne da koy digal lu bon di ko ca xiirtal moo tax nit ki saa soo toogee ba mu yàgg rek nga yëg ne sa bakkan mi ngi lay woo ci ak mooy yàlla ak jugal gaaw nga dem jàpp julli ñaar rakka Eh, ubbi sa kaamil di jàng wala nga yor sa kurus di wërd wala ngay naafila soo ko defee rek mu daal di daw sori la eh, ndax seytaane moo koy kattanal ci moo koy dooleel ci yow te seytaane bëggul turu yàlla eh, bëggul ku laab bëggul yàlla moo tax soo takkoog loolu rek daf lay daal di sori moo tax nit ki daam jéem a xàmmee bakkan boobu xam ne saa soo toogee rek sa bakkan xiirtal ci xiirtal la ci lu bon rek mel ni lu naan la jugal dem defe ko jugal nangam nangam nangam jokkool nangam nangam nangam ah, demal barab sangam ci foofu yëpp mu lay wax maanaam du du du barab yu baax lam lay xiirtal baaxut da ngaa war a wuuteeg moom waroo ko caa topp moo tax yal na yàlla yërëman ñu suñu bakkan ba ñu mën a xiirtal ci dara lu dul noona am na ci boo xam ne moom an nafsu al lawaama la tudd moom daf lay bakkan bi lay yedd an nafsu al lawaama moom bula la bee xiirtalee ci lu dul noonu ba nga def ko moom daf lay seetaan ba nga def ko mu mu di la yedd mu ngoog du bu demee ca suuratul qiyaama yaakaar naa dañ ko fa fekk laa uqsimu bi yawmil qiyaamati wala uqsimu bi nafsin lawaama mu ngoog nafs al lawaama bakkan bi nga xam ne daf lay yedd ba bakkan nit ki war nay góorgóorlu sax ci ndigal ba bum la bay def loo xam ne eh, daf le koy yedde waaye am na an nafsu al eh, mulhi eh, an nafsu al mulhima bakkan boo xam ne Eh, daf lay yënkiwal maanaam daf lay yënkiwal te boobu buñ demee ca suuratu eh, nu ñu koy waxeeti hmm, waaw buñ demee ca suuratu Shams yaakaar naa dañ ko fekk fa borom di wax baat auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mu ngoog mu ngoog eh, muy bakkan bi nga xam ne an nafsul mulhima la boobu bakkan nit suñ borom tawa taala yankiwal na ko ak njuumam waaye yankiwal na ko ak dëngam nga fas yéene góorgóorlu ba muy sax ci njub waaye fas yéene góorgóorlu ba mucc ca dëngam moom la yàlla di wax naan xad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha képp koo xam ne fexe nga ba sellal ko moom bakkan boobu eh, texe nga ba mu sax ci njub ga waaye képp koo xam ne eh, saggan nga ba tilimal ko kookee maanaam perte na kon boobu ab bakkan la ñuy wax ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax waaye am na bakkan bu ñuy wax it maanaam an nafsu al mutmainna bakkan boo xam ne bakkan bu dal la bu teey la waaye fekk xeexoog bakkan yi jiitu nag ba éliminer leen bu ci nekk maanaam nga nga not ko doo mën na egsi ci an nafsu ma mutmainna boobu it yàlla jàngal nañu ko ca suratul fajar yi fa mu waxee naan baad auzu billahi shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyatuha nafsu lmutmainnatu irjii ila rabbiki radiyatan mardiya ngoog eh, yow ey eh, yow bu dal bu tey dellusul ci sa boroom subhanahu wa taala nga xam ne bakkan boobu dafa dal ba yàlla di ko woo yaa ayatuha nafsul mutmainnatu ey yow bakkan bu dal bu teebi allahu akbar irjii dellusil ila rabbiki ci sa boroom ndeysaan bokk ñu bokk yàlla moo tax nit ki feek sa bakkan bi tey dël rek doo mën a dem suñu borom subhanahu wa kon ku bëgg a dem ci yàlla fexeel ba sellal sa bakkan eh, mu tey te ala bi zikrillahi tatmainul qulub ci zikkar la xol di dale waaye am na beneen bakkan bu ñuy wax an nafsu euh, radiya bakkan boo xam ne buy gërëm la bakkan boo xam ne lépp lu yàlla atte rek lépp lu yàlla def rek gërëm nu ko boobu di jàll jàngan jàngal nañu ko ca suratul fajri ci bii ma waxoon rek ya ayyatuha nafsul mutmain mutmainnatu irjii ila rabbiki radiyatan gis nga ko mooy nafsu radiya muy bakkan bi nga xam ne moom lu yàlla atte rek lu yàlla dogal rek moom li muy dund mooy alhamdulilahi ala kulli xaal maqaama alhamdulilahi ala kulli xaal lay yore loolu rek lay dund lu yàlla def rek moom neex na ko lu yàlla atte rek gërëm na lu yàlla indi rek gërëm na waaye am na beneen bakkan boo xam ne ñu ngi koy wax nafsu euh, maanaam euh, mardiya bakkan boo xam ne nag moom yàlla du koo gërëm nga xam ne bakkan boo xam ne yàlla du koo gërëm ba tey bakkan boobu yëpp ñetti bakkan yooyu yëpp ñu ngi ci suratul fajri eh, al mutmaina radiya mardiya yooyu yëpp ñu ngi ci suratul fajri yaa ayatuha nafsul mutmainnatu irjii ila rabbiki radiyatan mardiya gis nga ko boobu nag moom eh, dañ ko gërëm yàlla du ko gërëm bi ko yàlla gërëmee nag la ne ko fadduxuli fi ibaadi yow kat gërëm naa la kaay dugg ci sama jaam yu sell yee wadduxuli janati yi kaay tabbi ci sama ajjana ji kon foofu da nga ciy dégg ne bépp bakkan boo xam ne yàlla gërëmu ko rek bakkan boobu du ànd du bokk ci gaa yu baax ya waaye bakkan boobu it du tabbi ajjana allahu akbar kon bokk yi nan fexe ba yàlla gërëmuñ suñ bakkan bi suñ bakkan yi soo jógee ci bakkan yi ñëpp nag ci ngay doga am ne nag an nafsu alkaamila bi nga xam ne moom lañ soxla muy bakkan bu mat sëkk bi nga xam ne maanaam moom Eh, dal na gërëm na yàlla yàlla gërëm na ko boole ko ci jaamam yi ba noppi tabbal ko ci ajjanaam ji yan nañu yàlla boole defal loolu kon bokk yi eh, mel ni ne xadi eh, mel ni ne ñaan gi jaaroon na fi kon dañ koy gàttal foofu rek allahuma ilhim allahuma alhimni rushdi wa aisni min shari nafsi bokk yi ñu bokk yàlla ñu ngi ñëw léegi ci xadis bi xadisul yawm an umar bnu harisa radiallahu eh, taala anhu qaal ma taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi درهما ولا درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعل جعل لابن السبيل صدقة وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة رواه الإمام بخاري bokk ñu bokk yàlla jëlee nañ ci Umar ibnu Xaarisa alxaaris euh, radiallahu taala anhu yaan yàlla gërëm ko mu nettali ne yonent bi salaa salaam nee na euh, moom moo moom moo moo moom moo wax moom Omar moo moo nettali moom moo nettali wax ji moom Omar ibnu Xaarisa moo nettali qaala moo wax daan ne maa taraka bahul rasulullahi yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama inda mawtihi waxtu wa nga xamee na faatu na génn na àdduna dërhaman benn dërëm benn dirham maanaam bayu ko ginnaaw moom yonent bi yonent bi faatu benn dërëm benn dërëm bayu ko ginnaaw dañuy wax dirham di dërëm yonent bi salaa sallam ko ginnaaw wala dinaaran du caagee na benn dinaar liñ naan ab dinaar yi yonent bi salaa sallam ko ginnaaw wala abdan du caagee ab jaam bi muy génn àdduna it bayut benn ab jaam wala am matan du caageen it jaam jigéen bu dee góor ñu abdan dañuy wax al abdu bu dee eh, jaam jigéen nag ñu koy wax al amma ngoog moo tax mu ne abdan eh, wala abdan wala amatan bayut jaam bu góor bayut jaam bu jigéen wala shay an yonent bi muy génn àdduna bawut dara illaa baxlatuhu lu dut baxlaam ba albaydaa ah, bu weex ba baxla nag eh, soo ko xamut ayawaanun ahliyun la li rukubi walxam walxamali abuhu ximaarun wa ummuhu farashun wa huwa xaqimun laa yalidu ma ngoog loolu mooy baxla baxla maanaam eh, bàyyi la boo xam ne ci kër lay dund kom fas yi ak mbaam yi ak giléem yi ak xar yi ak bëy yi waaye moom dañ koy jariñoo li rukkoo bi ngir war ngir gawar ngir war ko wal xamali ak nga di ko sëf boo amee dara sëf ko moom nag baayam mbaam lay doon yaayam doon fas ñu di ko tudde ci ay wolof barkeele ñu koy wax doomi fas mbaam barkeele moom nag du jur maanaam du jur du am doom ku ji ku ku lay doon maanaam du am doom doomi fas mbaam lay doon maanaam baay bi mbaam lay doon yaay ji nekk fas mu ngoog moom la ñuy wax la moo tax ñu ne yéndu salaa salaam ab barke la rek bu weex moom la bayi woon wasilaahu ak ngànnaay ngànnaayam maanaam ngànnaay maanaam jaasi wa ardan ak eh, suuf soo ak suuf jaalaha suuf boo xam ne da ko def li li ibni sabili ñeel doomi yoon sadaqatan ab sarax kon kay bawut dara moom bax la rek la bay ak jaasi ndax suuf soosu da ko faa da ko faa bàyyil ñi nga xam ne maanaam doomi yoon lañ ibnu sabil nag buñ ko waxee ibnu sabil buñ ko waxee mooy koo xam ne tey da nga doon voyager euh, ba est ci dëkk euh, bëgg foo dal bëgg foo jaar eh, benn sa paas jeex na wala sa yóbbal jeex na hmm, eh, kooku mooy ibnu sabil yonent bi nag suuf si ñooña la ko fa defal maanaam ñooña la ko fa defal bayi leen ko fa sadaqatan mu nekk ab sarax ñeel leen kon kay yonent bi baax la rek la bàyyi ak benn ngànnaay maanaam benn jaasi si laaxoo eh, ngànnaayam mën naa am muy jaasi ngoog kon nga xam ne yontu bi sallallahu alayhi moom baxul dara loo ma tax loola Omar wax maa taraka baxut rasulullah yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi waxtu wa nga xamee ne faatu na eh, dirhaman benn dërëm wala dinaaran du càggee ne benn dinaar wala abdan du càggee ne ab jaam wala amatan eh, jàmbu góor maanaam abdan jàmbu góor wala amatan wala jàmbu jigéen muy ab jébéer wala shay du càggee dara illaa baxlatuhu lu dut baxlaam ba di doomi fas ak mbaam moomu ñu koy wax barkeele albaydaa bu weex ba wa silaahahu ak ngànnaayam mën naa nekk jaasi jaasi lay doon wa ardan ak maanaam suuf jaalaha soo xam ne def na ko eh, saddaqatan ab sarax li ibni sabili ñeel eh, doomi yoon bokk yi ñu bokk yàlla hadis bi nag al imaamu buxaari yi moo ko solo bokk yi xam ngeen ne ab yonent mu yonent yëpp kenn du leen donn yonent wax na ci hadis na nahnu maxchar al anbiyaai laa nuurasu ma taragnaahu fa huwa sadaqatun yonent salaa sallam wax na loolu ci hadis mu ne nahnu ñun maxchar al anbiyaai mbooleem ñun yi laa nuurasu deefu ñu donn maa taragnaahu la nga xam ne banañ ko fa huwa moom sadaqatun sarax lay doon allahu akbar yonent bi neena man ak ñun mboolem ñun mboolem ñun ah, nga xam ne faqakadun la minal uloofi cent vingt quatre prophètes téeméeri junni yonent ak ñaar fukk ak ñeent yonent bi sallallahu alayhi ñun kenn duñu doon nahnu machar al anbiya yi waxul rusul de al anbiya kon rusul yeeg yépp ngi ci biir waaw defuñu lu lépp luñ bàyyi suñu ginnaaw sarax lay doon waaw ndax al miras huwa ma yatrukuhu al insan li ahlihi ba'da mawtihi allahu akbar al mirasu huwa moom maa mooy la nga xam ne yatrukuhu bàyyi na ko al insan doomu li ahlihi ñeen ñoñam baxda mawti yi ginnaaw bu faatoo yonent bi nag moom nee na ñoom euh, kenn du leen donn buñ faatoo luñ bàyyi sadax sarax lay doon moo tax mu ne waqad bayyana waqad bayyana lana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam inna al anbiya inna al anbiyaa alayhim salaatu wassalaam laa yuurisuuna sadaqatun ngoog wali lam yurasu dinaaran wala dirhaman mu ngoog looloo tax ñoom kenn du donn ci ñoom benn dërëm wala benn dinaar ndax duñ ko yónni sax moom faru ba dara waaye bu bawoon àdduna li ci biir mi kenn du ko doon waaye sarax lay doon ndax yónent ab yónent kenn du ko doon bokk bokk yàlla suñ demee ci hadis boo xam ne abi darda moo ko solo fa an abi darda i radiallahu taala anhu an annabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal in al anbiyaa lam yurasu dinaaran wala dirhaman innama warasu al ilma faman aqasahu aqasa bi xazin wafi bi xazin waafirin ngoog waafirin faman aqasahu axasa bi xazin waafirin rawahu al albani mu ngoog jëlee leen ci abi darda mu nettali ne yonent bi salaa wax na ne innal anbiyaa naka ti ñu ne ko ha lam yurasoo deefu leen donn dinaaran ab dërëm wala dirhaman dinaaran ab dinaar wala dirhaman du caageen ab dërëm benn ab dinaar sax suñ ko baawoon kenn du ko doon benn ab dërëm sax suñ ko baawoon kenn du ko doon innama warasu al ilma ñoom li ñuy doon ci ñoom rek li ñuy doon ci ñoom innama warasu al ilma li ñuy doon ci ñoom mooy xam-xam al ilma moom la ñuy doon ci yonent yi mu ne nag fa man aqazahu képp koo xam ne nag jël nga xam-xam boobu doon nga ci doon nga ko ci yonent bi aqaza jël nga bi xazin cib cër boo xam ne waafirun bu lëwa lëwa lëwa lëw la cër bu cër bu rëy rëy rëy maanaam cër bu lëw bu rëy rëy rëy rëy allahu akbar moo tax yonent yi xam-xam la ñuy doon ci ñoom waaye defu doon ci ñoom alal lu ñu bàyyi lu mu bari bari bëri bëri sarax lay doon moo tax hadis bii ne yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ba muy faatu euh, bayiwut benn dërëm bayiwut benn dinaar bayiwut ab jàmb góor bayiwut ab jàmbu jigéen bayiwut dara lu dul benn bax la ñu di ko wax barkeele ak benn ngànnaayam muy jaasiyam ja ak suuf soo xam ne da ko fa bayil ñi nga xam ne ñooy doomi yoon yi mu nekk maanaam soro hadis bi al imaamu Buxaari yi ko bokk ñu bokk yàlla kon bokk yi dañ ciy dégg rek ne yonent ñoom ñëwuñu ñu fi woon pour dajale alal boo xam ne suñuy dem bàyyeeku seen njaboot ndax xam nañ ne njaboot yàlla moo leen di yor yàlla moo yore ñëpp moo yore seeni waajur ñoo yore seeni njaboot ndax ku ci nekk bi ngay ñëw fii ci àdduna indaale woo dara mais widd nga indaale dara yoroo ko ay yére sax indaale woo ko yaramu kese nga ñëw fii ci adduna sooy demit lépp loo man di xamit fi nga koy bàyyi doo yóbbaale dara moo tax ñoom dañoo ñëwoon nekk ci mission gindi nit ñi tëg nit ñi siraatu mustaqima waaye ñoom ñëw foon pour dajale alal wuuteeg lool sëriñ sëriñ jamono si nga xam ne ku ci koo ci gis ma ngay karkaral ay taalibe koo ci gis ma ngay tëral ay daayira koo ci gis ma ngay baylu ay tool ngir lan di karkaral alal di dajaleel seen bopp di dajaleel seen njaboot ah, ah, ah, di ko teg doomu aadama yi ca loolu nga xam ne maanaam teguwul fenn bokk ñu bokk yàlla yonent yi la ñu yàlla royloo eh, ci ñoom nekkun fu woon di dajale alal alquran nee nañu alhaakumu takaasuru xatta zurtumul maqaabira allahu akbar nekk fii di dajale alal rek di bëri bëri lente ci alal rek xatta zurtumul maqaabira ba ngeen xëy rek mujj ci biir bàmmeel yi moo tax ku man di doon lu alal ji bëri bëri lu kër yi rafet rafet lu ot yi bëri bëri lu la jong mi jong mi wër lu taayil bi yi bëri bëri bis day ñëw rek nga wan leen ginnaaw dem sa yoon ñu gas ba mu ñu suul la wala ginnaaw moo tax soo fi nekkee nekkoo fi lu dul dajale alal nekkoo lu dul dajale ay taalibe nekkoo lu dul maanaam di truand di wëy hmm, jaamuwoo yàlla digloo lu baax saxoo ci ndigal woo tere bis bu ne guddi na naaj na danga nga matt sa baaram wistan waaye yow ma yaadu zalim ala yaddihi bis ba nga tooñkat ba dana matt baaroomam allahu akbar dana matt sa baaroom wistan de kon yàlla yàlla musal ci loolu gis nga yonent sa sallallahu alayhi koo xam ne demoon ne ba àgg ne su ma neexoon su ma su ma newoon yàlla defal ma suuf muy wurus yàlla def ko muy wurus su ne ko def ko muy jamaa yàlla def ko ko su ne ko woon def ko muy or yàlla def ko ko bu ne woon xeer yépp def leen yow yàlla muy wurus sa xaalis ak jamaa ak yàlla defal ko ko te yontu saa sam daana toog ñetti weer yoo xam ne cin du takk këram ñaari way ñuul yi lay lay dunde muy tàndarma ak ndox dama na ba àgg ci dem ba amul lum lekk ba lépp benn yóot benn juif maanaam loo xam ne da koy da koy dunde juif ne ko kañ nga may fay mu ne ko bis sàngam danaa la ko fay mu ne ko bis sàngam danaa la ko fay bis ba jot mu ñëw ci moom na ko la ma waxoon de laa doon laa doon laa doon wut si la ma la lebaloon la laa soxla de fekk sax bis ba des na benn bis wala des na ay bis dat ba ko yonent bi salaa salaam jotugutoon mu ñëw fekk yonent fi mu toog fayu ko yonent bi ne ko ah amu amaguma di ndax lañ bis ban waxante woon jotugut maanaam euh, euh, euh, labbe bi wala juif ba daat koy daat koy daat koy daat ba ñu yonent bi sallallahu alayhi na ko dang may fay xool leen kooku rek koo xam ne maanaam lu yàlla bind yaa ci gën lu yàlla bind yaa ci gën nga dem ba ñàkk ñàkk bay leb bañ lay poñe ci bor kenn du yonent bi sallallahu fekk sax kooku doon koñe ci bar bi daa am lu mu doon xool ci moom ndax dafa jàngoon ci seen téere ya ne yonente mujjub jamono du mer ngir boppam waaye suy mer rek yàlla moo tax muy mer mu gis mboole melo yin ko wax ci moom gis na ko ci moom ba mu des booba mu ñëw na xaaral tey melo bi ma dese ci moom danaa ko xam ci moom tey xaar mu ñëw poñe ko daal di ñëw poñe yonent bi na ko fay ma yonent bi na ko defal ndànk ci la Omar buuree Ababacar ku nekk bocc sa jaasi ne yonent bi kii bàyyi ñor ak yonent leen déet bu leen def noonu bàyyi leen ko xam nga loo loo war a wax Omar yow Ababacar yow Omar xam ngeen lu ngeen war a wax di ngeen a war a wax eh yonent bi soo lebatee del fay donte nag waxtu ma ko joxoon jotugut waaye loolu ngeen war a wax yonent bi eh boo lebatee del fay waaye moom ngeen ko wax ko ne ko bor kenn du ko fayeekoo nii <laughs> cey yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye waaye yàlla na yàlla fayal ñu ko c'est le maître absolu ku mel ni moom amut ku mën a jàngalee ni moom amut ku rafeti jikko ni rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amut moo tax fa bima rahmatin min allahi linta lahum allahu akbar wa innaka la ala xuliqin asim kenn du rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi bis baa ngoog ñaan gaa ngoog xadis baa ngoog ki ko doon leeral seen soppali ci yàlla Abdul Ahad aqulu qawli haza wa astaghfirullahu li wa lakum wa sairil muminin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bàl leen ñu xaq abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tigil kese la doom sidi baram